di remercier en tout cas ñi nga xam ne ñoo fi teew yëpp euh, ISEP yi nag dañuy former sur 2 ans té xam nga ku wax formation professionnelle à la fin il faut mu am un diplôme légui diplôme bob moom lañ tuddee DISEP tey jii nak bo gisee tay ñu organiser li tay mu doon jour bo xamné vraiment dañ ci kontaan trop parce que dafa nekk jour bo xamné da fay marqué fin wu formation wu xalé yi après 2 ans ku xamné ku nekk xamné né modèle bi ñu utiliser dans les ISEP bu nga xam ne day cumuler en même temps dem entreprise dem euh, ñëw def théorie du lundi au samedi xale yi ñu ngi ci école bi c'est extrêmement il faut avoir vraiment beaucoup de courage beaucoup d'endurance de persévérance pour vraiment mun continuer jusqu'à la fin donc dafa baax tey bu ñu defee formation bi ba fin bi ñu tey ñu décider jox leen seen ay attestations bu ko defee c'est une façon pour ñun façon la pour ñu mun a jàkkaarloog ñoom féliciter les mais jàkkaarloog ñoom féliciter leen aussi si seen kanamu ay parents si sen kanam ay xarit sen ay mbokk parce que lolu dafa am importance nit ki bu defee yenn effort yi dafa bax nga nga féliciter félicité ko. ni profité wala ci aussi puisque ñom au cours de la formation dañuy def ay projet diko présenter defoon une présentation des projets Nous avons mieux ñoom ñëpp présenter seen projets des projets innovants d'ailleurs Nous avons mu ko jury. ñu jury jury yooyu bi ñu nous ñu présenter seen projets nous euh, avons délibéré. Nous délibérer ci ñooñu les meilleurs projets meilleurs projets sont les ñoom lañ doon jox ay Nous avons fait deux ans de formation fait un examen de certification

yëg naa ko trop mu neex ma trop euh, mu nekk lu toll ci ñetti téeméeri ndaw moo xam ne jàng na mu ñaari at ñu former leen ci ay métier métier wu technique euh, métier wu nouvelle technologie euh, digitale informatique ak yooyu yëpp tey nag ñu doon jot seen i diplôme ci seen kanamu seeni i kanamu seen i kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo leen encadré jàngal leen former leen mu nekk vraiment lu rëy lu neex Mais profité nak di féliciter la directrice générale et toute ses toute son équipe équipe am yëpp nga xamné ñom ñoo encadré xalé yi euh, gunge leen ba tay bis bu mel nii mun a mu nekk dal mbékté bu mag ci tànn bi ma tànn def ma parrain wu promotion bi xam première promotion ISEP Diamniadio ak ay am yaakar nak parce que initiative bu am solo la bu baax la parce que enseignement professionnel euh, suñu réew yi dañ ko soxla mooy yoon nag bi gën a gaaw pour créer emploi pour jox ndaw ñi emploi pour aussi auto emploi nga jàng métier sampal sa bopp doxal ba ëllëg ak si biir nga mën a taxaw taxawaay bu am solo